asalaamaaleykum dal leen ak jàmm li gën a fës ci bopp xibaar yi ñu dooree ko ci Maguette Seck bi fi waxoon ne Sané Madio mujjee na cee am ay jafe-jafe yu bëri xale bu jigéen ba ñu sàkk woon ci Rufisque ña defoon jëf jooju yoon teg na leen loxo Macky Sall amale woon na ab waxtaan digganteem ak ñi séqi ñàng meeg ñàngale bi ca Casamance juróom-ñaari soldaar ya ñu jàppoon bàyyi nañ leen nëgëni le tey kii di Aline Fall nekk cadre compagnie sucrière sénégalaise yoon mujjee naka teg loxo ndax xaalis yañ ko tuumaal ne moom moo ko sàcc Mame Matar moo ngi sàkku rek ñun ñëpp ñu daal di ànd daal di xeex li nga xamante ne moom mooy homosexualité bi nar a nekk ci réew mi kii di Abdou mbay nekkoon fi ex premier ministre moo ngi méngale élection locale yi ak élection législative yi nga xamante ne ñëwagul dinañ daanelee xibaar yi ci wàllu tàggat yaram ñu dooree xibaar yi ci kii di Maguette Seck nekk ki fi waxoon rek Sané Madio moom nag jaaykatu jën la moo ngi am lu toll ci fanweeri at ak juróom benn fii ma nekk nag wax jooju ma waxoon jural na ko ay loraange ci digganteem ak boroom këram ba sax fii ma nekk ni moo nga kër pàppam daal di wax rek ci xale bu jigéen bii ni ñu sàkku woon ci Rufisque gannaaw ba Sénégal jëlee coupe ba ba nit ñi génn di wane seen mbégte juróom-ñaari xale yu góor daal di ciy profitoo rek daal di koy sàkku ci loolee rek ñu daal di ciy dem police ba ñu defoon jëf jooju rek yoon teg na na leen loxo kii di ma ki Sall amale woon na ab waxtaan ak ñi séqi njàng meeg njàngale bi ngir rek ñu mën a faj seen soxla yi ñuy kaas ba ci loole sax mu tegaloon lu toll ci 69 milliards ci taabal bi ngir rek ñu bàyyi problème yi mën a delluwaat ca salle de classe yi waaye jàngalekat ya rek nee nañ lam leen jox doyu leen ba sax dinañ gën a wéyal seen grève yi ba fi mu nekk nii parent d'élèves yi commencé nañ ci doxub ñaxtu boobu noonu di saaku rek seen doom yi mën a dellu ca bangu lekkool ya waa Casamance juróom-ñaari soldats yañ fa jàppoon bàyyi nañ leen ci bësub tey bii nii gannaaw waa CEDEAO ba ñu joxee ki nga xamante ne moom moo jiite rebelle yi muy Salif Sadio bàyyi nañ soldats sénégalais ya ñu jàppoon ci bésub altine bii nii lu toll ci fukki fan ak ñeent ci weeru février kii de Aline Fall bi ñu tuumaloon ne rek moom moo sàcc lu toll ci ñaar téeméeri million ba ñu jàppoon ko sax ca commissariat wu Richard Toll tey nag la war a jàkkaarloo ak procureur ngir dindi tuuma bi ndax moom la wala du moom addu wax ci Mame Matar Gueye bi xamle rek ne xeexu homosexualité muy góor jigéen ñi nekkul ne dañ cee war a xaar homme politique yi nekkul Sonko lañ ciy woo wala Macky Sall ñun ñëpp ñoo war a ànd booloo xeex li nga xamante ne moom mooy homosexualité bi ndaxte dafa xaram bu leelu weesoo ñu dikk ak yéen ci wàllu politique kii di Abdoul mbay nekkoon fi ex premier ministre moom nag moo ngi méngale fi mu toll ni élection locale yi ak élection législative yi ñu jublu ci fanweeri fan ak benn ci weerub juillet ndax nee nañ opposant yi fi nekkoon ñoom ñoo fi nekk ba léegi te dañuy gën di am doole te fii mu nekk am nañu pàcc bu rëy ci réew mi kon nag daa mel ni élection locale yi ñu weesu ak élection législative yi ñoo ñoo naru nuroo kii di Matar Ba moo ngi xam xamle ne rek polémique bi muy dégg ci polémique prime yi moom nee na moom yoonam nekku ci ndax amul benn maqaam di tànn ka nekk ca fédération ba kaw ka ñu war a primer ak ka ñu warul primer ndax moom xam na ne ministre de l'esport la waaye waa fédération tamit am nañu koo xam ne moom moo leen jiite ba beneen yoon